mbokki internet Kabir TV ñu ngi leen di jaajëfal di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun ñu dikk ak yéen ci xibaar yi ci kàddu gi nga ànd cek soxna Fatou Gueye ci xarale gi ñu feggoo cek Mansour borom daara ji coowal Adji Sarr Ousmane Sonko ñu yóbbu ko devant la chambre criminelle gannaaw observation bu parke ak avocat Ousmane Sonko ak yu Adji Sarr kii di doyen des juges d'instruction Maham Diallo daal di jël dogalu ko yóbbu ko devant la chambre criminelle li la fixé guñu ko ca biir courrier ba kii di juge bi ne kii di leader bu Pastef Ousmane Sonko dañu koy tuumal ci viol ak menace de mort gannaaw accident bu metti bi amoon na ca Sikilo nekk ci région bu Kaffrine juróom-ñetti fan ci weerum janvier ba ñeen fukk ak ñaari doomi aadama ñàkk ci seen bakken ji ci réew mi Macky Sall di soññ gouvernement bi taxaw ci mesures yi ñu jëloon na ca conseil des ministres jëmale ko ci la sécurité routière jëm ci la réforme ak yeesalaat lii di système de transport public wàll yépp ñu placé ko garde à ni ki démb Mortale yi ñu gën koo xam ci nit dofa bu ñu sukkandikoo ci libération online li ñu koy toppee bokk na ci ñàkk respecte institution bi di def menace de mort autorité judiciaire yi ak ay injure publique bu ñu sukkandikoo ci avocat maître Khoureychi Ba kàddu yi mu yëkkati ca RFM biti réew ca Mali bu ñu sukkandikoo ca RFI ñu bëgg amal ab réunion ca Alger ngir sauver l'accord de paix accord paix bi nga xam ne signé woon nañu ko ca atum 2015 teyit waxtaan boobee nga xam ne bëgg nañu ko amal ñu amal ko feneen fudul ca biir Mali ca Kenya William Ruto joxoñ baaxaamu tuuma ñii di adversaire yi mu bokkal làngu ko politique bi ca ba ñuy amal la présidentielle 2022 ci weerum août tuuma yooyee ñu ngi koy fësal talaat fukki fan ak juróom ñaar ci weerum janvier kii di William Ruto moo ko fësal ca Russie la ñu jëm Russie di wëyal sanction yi mu tegoon ci kaw Union européenne ca loolee Union européenne di wéy di teg pression Russie par des mesures unilatérales bu ñu sukkandikoo ci porte-parole du ministre russe des affaires étrangères Maria Zaharova biti réew ba tey bi yoon na ca Guinée ka fa nekkoon njiitu réew bu Guinée Alpha Condé daal di joxoñ baaraamu tuuma réew bu France ne moo dugal loxoom bu baax ca élection ba waral mu ñàkk li di pouvoir ba gannaaw ba mu ñàkkee élection yi ci septembre 2021 gannaaw bu mu fa defee lu ëpp fukki at ca bopp réew ma lii moo fi ruse woon ci ay xibaar ngeen di wéy di ànd ak programme Kabir TV ci kaddu gi nga àndañ ca soxna fatuge ci xarale ga ñu fegoo woon ca kamaasu borom daara